asalaamaaleykum daleen nag jàmm ëttu yéenekaay yi ñu ndool tey jilee dañu koy door ak Sud Quotidien muy ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication muy waxtaanee waxtaan yi am ci diggante gouvernement bi ak syndicat bi ëmb jàngalekat yi di xamle ne société civile nag sol na dàllam daal ngir indi si ab saafara nguur gi dafa dog ngir indi saafara ci rëkk-rëkk ñi nemmeeku ci njàng meeg njàngale mi ci Sénégal moo tax it daal gouvernement bi wóolu woon ci gaaw bi ñu génn waa G7 ngir ñu waxtaan wante nag juróom-ñetti ponk yi nga xam ne moom la fa gouvernement bi yéegee jàngalekat yi daal doyu leen benn yoon moo tax daal ñu woy di wëyal seen grève yi nga xam ne moom la ñuy amal saa su ne ci ginnaaw ga nag la ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication taataan xalaatu président coalition nationale pour l'éducation pour tous du Sénégal di Siley Gorbal si ak directeur exécutif bu ko si COSYDEP di Cheikh Mbow ñuy rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne moom lañ ci nemmeeku te ñuy yaakaar yi ne daal saafara dinañu ko amal ci beneen daje bi nga xam ne moo nar a am ci biir ayu bés bi ñu ne ci diggante gouvernement bi ak jàngalekat yi wante nag Siley Gorbal Sy ak Cheikh Mbow coow loolu terewu leen benn yoon nag xamal nguur gi ak syndicat yi nii ku ne daal am nga sa responsabilité ngir ñu aar bu baax a baax école publique bi ci suñu réew Cheikh Mbow di directeur exécutif bu ko si dep di fàttale ne li jàmp daal mooy ñu fexe ba suwe l'école bi ci jamono joo xam ne nag si lay gorbal si bu SNEP di xamal suñu naataango yi ba tey nii ñun daal sàkku nañu woon ci syndicat jàngalekat yi ñu dakkal seen mouvement de grève yi wëyal waxtaan yi ñu wax ba tey ci wàllu yëngu-yëngal yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci réew ak Sud Quotidien bi xamle ne démb daal ASP yi dañoo dogu woon bu baax a baax ngir ñu gën a gestu anam yi nga xam ne ci la ñuy dund ak ci ñuy liggéeyee agent de la sécurité de proximité yi fare ci région bu Ndar gee ci démb nag jàkkaarloo ñu nag taskatu xibaar yi ngir ñaawlu bu baax a baax salaire yi nga xam ne moom lañ leen di fay te néew na lool ak it seen statut bi nga xam ne daal neexu leen dara ginnaaw gi ñu joxee nag ak bataaxal kilifa yi foofu ñu ngi njiitu réew mi dige yi nga xam ne moom la amale woon ca ñoom ni da leen di dugal ci fonction publique wala rek bokk ñu bàyyi leen ñu wëyal seen bopp te lu golo xam bootee ko doomam ñu des ak jàmmaarloo yooyu nga xam ne yu taroon la démb ci diggante ASP yeeg takk der yi ak waa tribune manifeste yooyu ñu nemmeeku ci Ndakaaru ak ci yeneen gox manifestation yooyu nga xam ne dañu ko tere woon ci Dakaaru Kaolack Kolda ak ci coor taxul benn yoon waa ASP yi deltu gannaaw amal nañu ko donte ca Ndakaaru nag li ci gënoon a fës mooy lacrymogène yi nga xam ne jot nañ ko asandi ci ci Gicoor nag moom la fa gënoon a fës mooy ay sànnante xeer ci jamono joo xam ne ca Kolda ak Kaolack nag yenn ci ASP yi dañ leen teg loxo ñenn ñi sax dañ leen yóbbu woon ca kaso bu ñu sukkandikoo ci Guy mari Sagna ak i ñam yëngu-yëngal yi le mi ngi am ci jamono joo xam ne nag njëgu ñam yi nga xam ne moom la askan wi di jëfandikoo jëfandikoo daal yokk na bu baax a baax ñu des ak loolu le ak le soleil bi ñuy yeggee nan la nguur gi mën a def nag ngir jooyanti mbir mi ñu jox ci kàddu ki nga xam ne xelam daa màcc jëm ci wàllu koom-koom di Malick Cissé mu ne nguur gi daal ñaari mbir rek la mën a def wa ilaa mu wàññi bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllu lempo yi wala bokk mu subventionné njëgu ñam yi nga xam ne moom la askan wi di gën a jëfandikoo ak it njëgo produits yi nga xam ne ci wàllu pétrole bi lay laalee ki ñu dénk jënd ak njaay mi diggante Sénégal ak waa biti réew di Ansu Badji moom nag dellusi na bu baax a baax ci lan moo waral ci dëgg-dëgg yokkute njëgu li askan wi di gën a jëfandikoo mu dénk ko waa Sud Quotidien ñu jàll ci wàllu politique waxtaanee révision liste exceptionnelle jëmale ci élection tabu député saytu bi nga xam ne daal dañ ko fas yéene amal ci diggante juróom-ñaari fan jàpp fan weeri fan ak benn ci weeru mars ginnaaw gi ministre de l'intérieur yéegee projet de décret boobu la njiitu réew mi gi mujj kaa siifee ñu des ak njiitu réew mi di président Macky Sall ak waa tribune dellu si nag ci jàngat gi nga xam ne moom la war a amal ñëw di nguur gi jàngat ba war amul lu ko bu ñu weesoo mbirub Idrissa Seck ak ay ñoñam Moussa Sy Banda Diop ak ay mu daf njiitu réew mi daal dafa ñëw neexal kii di bàmba Fall tegee nële ñenn ci ñi nga xam ne nag ñoo yàgg di ko gunge ci wàllu politique ab war lañ ko gisee su Sud Quotidien moom laaj ci xalaatu ki nga xam ne taskatu xibaar la di Assane Somb mu ne daal jege bi nga xam ne moom la Bamba Fall ñëw jege si nguur gi mun na indi ay gàllankoor ngir ëllëkam ci wàllu longue politique bi ba tey ci wàllu politique le soleil sénégalais ci mbirub tabbu premier ministre jox ci kàddu maître Ousmane sey jiite front républicain mu xam le ne nag donte sax nag Macky sàll tabagul ba tey jilee premier ministre boobu ñuy xaar daal àpp bi daal weesooguñu ko ba tey jilee l'observateur nag tey di ñu waxtaanee li xew fële ca Cambérène te mu doy waar lool ki nga xam ne da doon jaay wurus néewam la ñu fekk ci benn oto ñu dugal ko ci benn saak plastique muy xam le ne am na koo xam ne teg nañ ko ci loxo ñu des ak waa l'observateur bi waxtaane nag nan la ñuy def ba saafara jafe-jafe yi nga xam ne moo am ca Mali rawatina jokkoo ci wàllu téléphone bi am ci altine gi ci diggante Macky sàll ak Assimi Goïta bu li yëpp amee nag yàlla ak société civile bi la. tàggat yaram dañu koy door ak waa record di waxtaanee ndaje commité exécutif bu fédération sénégalaise de football bi nga xam ne moom lañ doon amal démb dellu si si taxawaay Omar Gueye Ndiaye bi nga xam ne Amadou kan dal na ci kawam bu baax a baax Amara Traoré daal moo fësal ne. moom la àndal Augustin Senghor ak Abdoulaye Sow nag ñoom def nañ lépp daal ngir coow li ñu teg ko ci suuf l'observateur dellu si bu baax a baax nag ci li tukkee ci réunion commité exécutif fédération sénégalaise de football lee ak it sargal bi ñu sargal bu baax a baax Yaaña Njaay jiite CNOS bi waa record ni soxna su am solo sile ñu duppee ko coupe d'Afrique des nations moo seeti woon démb Jaaña Njaay ñu jeexale kook ak waa soleil di waxtaane nag match barrage jëmale ci coupe du monde bi ci diggante Sénégal ak Égypte amal match retour bi ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars na yu Égypte yi nag dañoo bëgg daal ñu toxal loolu lee yokk ci benn bës fi mu toll nii daal ñëpp waa FIFA lañ ci bàyyi nopp ngir xam ndax dana fekk si waa Égypte ci seen sàkkuteef bi am déet lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Négociation gouvernement syndicat d'enseignants, la société civile sort du bois. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Décidé à trouver une solution à la crise qui secoue actuellement l'école sénégalaise, le gouvernement a convié le G7 la table des négociations samedi. Toutefois, les huit propositions du gouvernement pour un impact budgétaire de 69 de francs CFA n'ont pas satisfait les syndicats interrogé sur cette situation par le quotidien du groupe Sud Communication, le président de la coalition nationale pour l'éducation pour tous du Sénégal, Sélé Gorbalsi, et le directeur exécutif de la COSIDEP, Cheikh Mbow, salue les avancées dans les négociations et espère qu'un consensus sera trouvé à l'issue de la prochaine rencontre entre les deux parties prévue dans la semaine. Ils n'ont pas manqué tous les deux de mettre État et syndicats d'enseignants devant leurs responsabilités pour la sauvegarde de l'école publique. Pour Chermbo, directeur exécutif de la COSIDEP, l'urgence est de sauver l'école alors que Siley Gorbalsi de la CENEPT confie à notre confrère de l'avenue Bourguiba, je cite, Nous avons demandé aux syndicats de suspendre leur mouvement de grève et de poursuivre les négociations. Toujours sur le front social, Sud Quotidien relève la croisade nationale des ASP qui sonnent la charge contre leurs conditions de vie et de travail. Les agents de la sécurité de proximité de la région de Saint-Louis ont fait face à la presse hier mardi pour fustiger leurs mauvaises conditions de vie dues à leur maigre salaire et leur statut. Après avoir remis un mémorandum à l'autorité administrative, ces ASP ont invité le chef de l'État à matérialiser les promesses faites à leur endroit concernant leur intégration dans la fonction publique ou à défaut les libérer pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Affrontement de proximité, c'est ainsi que Tribune qualifie les manifestations des ASP entre Dakar et les autres localités interdites à Dakar, Kaolack Kolda et Ziguinchor. Toutes ces quatre manifestations se sont tenues malgré des jets de grenades lacrymogènes à Dakar, des jets de pierre à Ziguinchor, des arrestations à Kolda et Kaolack ainsi que des gardes à vue, selon Guy Maurice Sagna et ses camarades. Mouvement d'humeur qui a eu lieu au moment où les prix des denrées de première nécessité flambent. Justement, pour la stabilité des prix des denrées, le soleil nous fait part des options qui s'offrent à l'État et rappelle que c'est une situation qui n'est pas propre au Sénégal. Pour Malick Sissé, économiste, deux possibilités s'offrent à l'État du Sénégal. La première concerne la fiscalité. Selon alléger le fardeau fiscal comme les droits de douane et la TVA, ou alors tout simplement subventionner les prix des produits pétroliers et alimentaires, en d'autres termes, des prix administratifs réglementés. Les commerçants confient au soleil qu'ils sont prêts à se sacrifier, alors que le directeur du commerce extérieur, Ansu Badji, apporte des précisions sur cette hausse des prix des denrées alimentaires dans Sud Quotidien. Parlons politique à présent avec tout d'abord la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives fixé du 7 au 31 mars. C'est suite à un rapport de présentation du projet de décret portant révision soumis au président de la République par le ministre de l'Intérieur que le décret présidentiel a l'exécutif, Macky Sall, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Restons avec lui, avec Tribune, qui s'intéresse aux enseignements des locales sur les transhumants. Leçon non retenue par Macky Sall. Le confrère relève les cas Idrissa Seck et ses lieutenants, Moussa Sy, Banda Diop et Imoud Daf, entre autres. et revient sur le fromage offert à Bamba Fall au détriment de fidèles compagnons. Tribune parle d'une trahison à plusieurs niveaux et de la perversion du vote des Médinois. Restons avec Bamba Fall, ce khalifiste devenu conseiller à la présidence de la République avec l'observateur. Bamba Fall, parcours d'une bête politique clivante et le journaliste Hassan Samb sur l'entrisme de Bamba Fall confie à nos confrères de l'avenue Bourguiba que pour son avenir politique, ça pourrait être un frein assez important. Alors que dans le soleil, Maître Ousmane Sey, le leader du Front républicain, confie à nos confrères que pour ce qui est de la nomination du Premier ministre, Macky Sall est toujours dans les délais. Intéressons-nous à présent à la découverte macabre à Cambérène avec l'observateur qui passe en revue un le vendeur d'or, a été retrouvé mort dans un véhicule et le corps mis dans un sac plastique. Le confrère revient sur les premiers éléments de l'enquête et le mobile du crime et signale qu'un suspect a été arrêté. Restons avec l'observateur qui s'intéresse à la résolution de la crise au Mali et revient sur les secrets d'un entretien téléphonique entre Macky Sall et Assimi Goïta qui ont échangé lundi soir. Le confrère relève le rôle déterminant de la société civile sénégalaise dont cet entretien téléphonique entre le président de la République et par ailleurs président de l'Union africaine et le colonel Assimi Goïta, président du comité national pour le salut du peuple En sport, parlons tout d'abord du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui s'est tenu hier mardi avec tout d'abord Record qui informe Koumar Gueye met les pieds dans le plat. Amadou le Rabrou et Amara Traoré le défend. Le confrère informe qu'Augustin Senghor et Abdoulaye Sow calment le jeu. L'observateur revient en détail sur les détails de la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football avec l'hommage appuyé rendu à Diagne Ndiaye, sujet qui intéresse également Record qui nous parle de la tournée du trophée de la Cannes avec la grande dame qui a rendu visite à Diagna. Et terminons par le soleil avec le match Sénégal-Égypte en de la Coupe du Monde Les Pharaons demandent un décalage d'un jour du match retour qui était prévu le 28 mars prochain. La FIFA, qui a retenu ces dates, devra se prononcer sur la question incessamment, informe le soleil. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.